yàlla waa ñu jàmm Siteu wala wala Siteu moo daan euh, Ama Konde teel foofu. waa Tarkine ak ah, ah, ci non tey non attends non attends gis nga Lac de Guiers coach bu yeboo yow nga wax ko bàyyi di ko tëggal combat wala ñu koy tëggal combat <laughs> gis nga kii euh, démb am na ku ma gis si benn commentaire mu ne yàlla naa am sëy bu yàggee ni <laughs> euh, combat Lac de Guiers tam <laughs> kenn wax xoolal da nga laaj ñoom Pierre lan laa leen wax. Lac de Guiers moo leen dal waay Lac de Guiers kat man aw gone man waaw waaw waaw non il est bon xam nga man laa leen ñoom Pierre avant le combat da ngay ñoom Pierre ñu may dee dama leen ne ñuy wax ma ne la ñu ne combat bii ah dana yàgg de te boobu match nul la wala Lac de Guiers buy gagné xam nga li muy jógee par ay points yooyu am na yooyu waaw. mi ngoog loolu yooyu non mais non mais Lac de Guiers doo bàyyi yow yow. bëri bëri <laughs> bëri waaye yow doo bëri yow waa kii. Ah, di la aw mais yóbbu na saa waaye daa xool kan. jom ko c'est que kii sax moo bëri moo bëri sax waaw booy bee bëri. booy bi moo bëri de. waa Tarkine yaay en tout cas. di ko félicité <laughs> si victoire victoire bu seen xol wax dëgg yàlla ñaanal ko. mais Fatima mbir ma gën a wéy. ayca 30 secondes yàlla fay la 30 secondes. xoolal wallaahi dafa am lu ma dégg te man loolu dama kaa bëgg si àdduna. muy lan si booy Sita. Ah. Sita dafa amoon non c'est extraordinaire. Mm-hmm. loolu mooy wane nit ki sa personnalité. Mm-hmm. dafa am xaritam bu mu daan nekk. Oh, te mu gaañu. xale bi man xaw ma ko woon. Mm-hmm. xale Fodé gaañu. ndeysaan Siteu jëndal yaayam kër. jaay ñoo ko mm. tabax ñoo tabax kër tabax tabax tabax yaay tabax euh, yaay kër këru Fodé te te te bu bu bu Fodé rek a siiw Aliou Sow doguma la parce que ñoo ñoo dëkk mm. bu Fodé rek a siiw nit booy def lu baax àdduna dalay topp parce que mm. du dafa toog nii rek xëy rek euh, Sénégal gi yëpp di topp euh, Siteu ci ci ci ni mu demee noonu di ko ñaanal bu baax nit ñi duñu topp ko bon yi muy def ko bon te yi muy def ci suuf rek la ko yàlla di fay ci kaw mm-hmm. mi ngoog ame ah, xoolee démb démb kee lañ doon victoire bi xoolee gaay yëpp tëb Siteu Siteu Siteu Euh, temps bi temps bi ñu ñu wëy rek. Euh. lakk ah, waaye lakk lakkay moom. Euh, lakk dëgg dafa am mbir mu xew euh, ca Kër Matar Diop suba teel ndax nag euh, jàpp nañ ni rek dafa am benn xale bu góor ba nga xam ne dañ ko fa teg loxo la ñu njortees rek ni que daal dafa yoroon drogue bëgg koo dugal ci biir euh, këram. Mhm. laaj bi samp nag mooy kan moo nekk ci ginnaawam ak it alal la ñu ko bëggal ndax rek ci bu ñu sukkandikoo ci ab vidéo ba nga xam ne moom lañ doon vidéo xale bu góor boobu nga xam ne dañu jàpp ni moom moo doon dugal boobule mbir ci këram. vidéo bu ñu publier la ko ko def rek di diaspora 221 mu viral lor nag ci hmm. réseau yi. waral rek euh, laaj bi samp fi mu ne nii euh, ci loxo yoon ñu xaaral rek fan la waa nent ci fekk fa gëtam non xale bu góor bi dañu ko jàpp ci vidéo bi ni moom mi dafa yoroon drogue pour dugal ko kër Matar Diop Soubatel du ñu vidéo moom waaj parce que xale bu xale bu góor kooku xale la ndax mi ngi def ay rastaak yooyu mënuñu jàllale euh, image am parce que yor drogue bi dafa yor bu bon man man personnellement hmm. gisuma mu yore drogue mais ci vidéo bi bi wëy ak ñi nga xam ne ñoo jegalaale jege ñaale Matar Diop suba teel loolu la ñu xamle comme mbir mi dafa teeri ci yoon ñu xaaral mm-hmm. rek fan la wànnante parce que moom a des mooy gérer Pape moom mooy gérer Pape Diouf ah waaw suba teel moom dafa dafa am euh, kii de bu grand quoi te c'est un garçon qui s'est battu mais ak lu ci mën ci am rek euh, euh, mbir la boo xam ne lu lu ñaaw la lu ñuy mm. ñaaw la parce que showbiz bi loolu kenn mosu ci gis lu mel noonu mm. ñu wéy rek dem ci beneen point fële fële ca réewum France nag nuit de l' excellence africaine Chérifou moo jël euh, prix meilleur artiste diaspora flash kii la rek express la rek bu ko defee ñu mën cee jàll di ko félicité bu baax waxtu bi daf ñoo xoot euh, coach yaa ngi may xool waaye nag dañuy wéy rek ah. Chérifou voilà boobule son sax moo waral moo am euh, raaya boobule voilà dafay ñëw petit déj ñu koy ñaanal bu baax a baax ndam li ndam li ndam li et puis xam nga mhm. waaw am na am na ñu nekk ci ginnaaw. Fatima Zafa wala euh, DJ Cool. incha allah voilà voilà non non non il est fort. ñu ñu ñu dem ci leneen rek euh, coach ndax nag dafa gannaaw arrestation Pape Sané bi dafa am ab communiqué ba nga xam ne CAP daf ko génnee ngir rek ñaawloo anam ba nga xam ne moom lañ ko tegee loxo bokk na rek ci yi ñu euh, dëxëñ ci boobule communiqué xam ne nañu rek la ñu ko def nag rawul lu dul ab kidnapping ndax ca bërëb liggéeykaayam nag di fii la ñu ko fekk rek gàddu ko yóbbu. Mhm. leneen rek mooy jàpp yi nga xam ne nag daf doon wëy di jaabaaju jonge ci euh, këru euh, way taskatu xabaar yi doon euh, doonoon lu fës loolee ba ñoom sax suñu biir doon jéem a régler naka la ñuy boobu boobule mbir te it mhm. nag gën a yokk professionnalisme ci boobu boobule mbir waaye naka laataa ñuy daaneel rek jàpp ya commencé waat sokkeeku waatee rek ca Pape Sané bokk na rek ca la nga xam ne rek ñoom it xamal leen nañ ko mooy daal di sàkku rek ñu teggi seen Mm-hmm. tànk wala sax bàyyi ko euh, ci nu mu gën a gaawee ndax nag moom Pape Sané place am du prison euh, gannaaw ni ki euh, lundi bi weesu rek lañu ko tegoon loxo. Mm-hmm. garde à vue ko ba jeudi la ñu koy door a defeere ba waxtu wi ñuy àddoo ngeen teew teewlu Pape Sané mi ngi ci loxo yoon ñoom nag waa CAP sàkk nañu rek ci kilifa yi ñu teggi seen tànk tuuti ci ñi nga xam ne ñooy woy taskatu xabaar yi nga xam ne nag ñu ngi leen di faral di jàpp waaye nag leneen di caméraman ndax bu ma nee woy taskatu xabaar jàpp nañ fi caméraman jàpp nañ fi keneen ak keneen. donc moo war waral ñu tenkee ko ci biir bi de waaye nag laata ñuy tëj xamle nañ ni rek euh, correct nguur gi bu ñu bëggee di euh, teg loxo wala sax mboolem ñi nga xam ne ñooy tegaate loxo ci euh, réew mi nañu jubal ci correct ndax ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkal taskatu xabaar yi. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoo nekk njël presse. waaye nag lañ ci mën a sànni rek mooy dañuy sàkk ñu bàyyi Pape Sané ndax nag dafa doy ci jàpp gi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp ay journaliste bokk na ci fii ci kër gi ñi nga xam ne. Euh, jàppoon nañ fi Cheikh Bara euh, jàpp fi ñeneen ak ñeneen. mais ñoom lan wax ni moom lañ koy toppee. diffusion de fausses nouvelles te boobu la publication ci post Facebook la ko defoon. Oh ci euh, atum comme nag mm-hmm. Facebook affaire yi day ñëwaat mbir ma ñëwaat. ñu jël ko teg loxo. waaye nag ak lu ci mënti doon rek journaliste place am du kaso te Pape Sané mën a seede rek ci moom mooy prudence ba nga xam ne moom la doxee ndax gis nañu bi ñu tëjee Pape Ndiaye. Pape mm-hmm. Pape di ñu wax doxee leen nii teg loxo bu ñu sukkandikoo ci lool rek yaakaar nañu ni euh, xel mën na dal ci ay mbiram te di sàkku rek ni euh, xel mën na mën na mën na dal ci li nga xam ne nag moo ñeel ay mbiram di ñaanati rek ci kilifa yi comme ci njëkk la ñuy waral di ñaan nañu teggi seen tànk rek bàyyi ko mu mm. dellu si waat ak lu ñuy defati rek ñu jéem a xool wala sax waa correct ñi nga xam ne ñooy euh, ñoo ñoo ñu fi nekkal bu ko defee ñu jéem a waxtaan man lu may laaj mm. man man leen laay laaj xam man man dama bëgg <coughs> posé nañu que lan la def nga ne diffusion de fausse nouvelle. loolu lañ ko toppee. waaw déglu ma yow tamit. waaw ñëwal ay secondes ñëw dama ne dama ne nañ ñu wax fausse nouvelle boobu man fausse nouvelle boobu boobu laa bëgg xam lan la fa wax lan la wax ci fausse nouvelle boobu. ba ñu kii comme ça ñun ñu mun a. apprécier mi koy wax nee na ci page Facebook am. lan la fa wax lan. publication la defoon depuis mars 2020. wala lan la fa wax ci lu ñeel euh, mbirum euh, Jean Baptiste tin waaw euh, ci. xam nga loolu yàgg na. wax dëgg yàlla. waaw te man moo tax ñu bàyyi ba tey aussi di ko téye même bu dul deux ans après te man coach man fenn laay taxaw man xooluma lu ñu def xooluma lu ñu defu ndax man nekkaluma fi genn mhm. te ku fi ne nag la nga loo mun ci def ba nga dugg ci dara loolu da nga koy assumer mais man personnellement am naa droit ñu jàpp sama mhm. collègue nga mhm. ñaan njekk xool na nga xam ne mu gën a rafetee nga def ko benn ñaareel ba mooy awakoon de place journaliste du ci kaso bi du ci kaso bi te lii nii jàpp bi coach xam nga lan moo tax comprendre ci poste bi nit boo ko boo ko jàppee mu nekk personnalité boo xam ne c'est public yoon la nga def comme na ngay na ngay def ci moom la ci ñëpp toll mm-hmm. noonu lañ ko waxee peut-être nag ñoom buñ fi nekkoon dinañ décortiquer euh, ce qui s'est passé réellement xamuñu comme muñ ci loxoy yoon mënuñu lu dul ñaan ñu teggi seen tànk bàyyi ko mu ñibbi këram après lu ñuy régler ñu door ko régler loolu la ñu ci mën non man je suis Pape Sané je bon je fait beaucoup de mal moom ak Nit Dof parce que Nit Dof c'est quelqu'un que que que j'aime beaucoup donc sax daf may xas parce que je trouve que c'est un garçon qui est très vrai dans son cœur su fekkee ni partagé ma yenn ak moom mm-hmm. quelqu'un comme Pape je parie que ni fii ci biir Walfadjri maa fi gën a xam Pape mais feeñul. Mhm. dëgg la man maa fi gën a xam Pape Sané. waaw loolu man xam naa ci dara. waaw te Pape Sané ci boppam xam na ko yow boo ko xamee Pape Sané xam na ko. Mhm. te ñi ko xam bariwul. yaa ngi dégg. c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Mhm. quelqu'un ku ma wan comment fonctionne le Sénégal. macha allah alors que je je manquais beaucoup de détails. ci yenn. Euh, parce que quand même gu nekk France là mm-hmm. te yu bëri daf ma daf xaw ma ko woon mm-hmm. j'ai ah, appris beaucoup de dans ce pays mm-hmm. et c'est à cause de Pape te moom xam na loolu Cheikh Diane xam nga ko waaye moom xam na ko te man xam naa ko te duñ ci wax donc bu ma gisee yi daf may metti trop Euh, ci kii bi ci mbir mi nañ ko yàlla dimbali. Mm. ñu génne ko ci jàmm ak salaam Boy Nit Doff aussi yàlla dimbali ko ñu mm. génne ko ci jàmm Pape Sané c' est un homme qui a beaucoup d' expérience il connaît extrêmement bien le Sénégal parce que xam Sénégal. dëgg la man jàngal na ma man lu bare bare ci yenn réalité loolu moo tax loolu moo tax man ah, tuuti rek. Mm-hmm, mm-hmm. loolu moo tax man ma demandé. Mm. parce que man Pape Sané bi ma xam. Pape Sané nga xam ne des fois moom sax moo ñuy wax. wax leen nii. ñu ne Pape Sané moo def euh, division de force nouvelle. mu def erreur bi nii. ak ak ak lu ci xam lan la. ak lu ci mun ci am Pape fii toll na jamono boo xam ne képp ku ñu fi jàppee dara mënuñu waat ni lii la def ba mu leer ñu. parce que ku ci ne ak nañ lay jàppee. nañu fi jàpp bëri na Oustaz ba tey mi ngi ci kaso bi Oustaz Assane Seck. Oustaz Assane Seck ngi ci mm. kaso bi. lu ñu mën ñun en tan que journaliste mooy ñaanal leen ñu génn te. ñu xam ne ne place journaliste du ci kaso bi dañu koy wax di ko waxaat jàpp yi nag <coughs> arrêté woon na comme reprendre na ñu ñaan yàlla rek mbir mi euh, ñu xool rek naka lañu koy euh, lijjantee waaye nag loo xam ne euh, jeex na ba pare daf ci am loo xam ne jaru ko ndax ngor dafa am solo mm-hmm. ñu wëy rek dem ci beneen point balaa waxtu wi duñu xoj gis nañu mm-hmm. rek ni ki barki démb Aliou Sow Euh, ci week bi rek euh, gis nañu président Macky kàddu yoo xam ne jot na ko yëkkati jëmale euh, ci li nga xam ne mooy doxalinu réew mi ak ci région yi waaye nag Ahmed xalifa Niass yëkkati fa ay kàddu di xam ne rek lañu mag la leen Macky Sall digoon ci seen boobule gox defuñu ko tali ba nga xam ne fas yéene woon nañ ko tabax amuñu élément bi moo tax rapidement rek ñuy tënk defu ko te bu ko deful nee na ko duñu leen woteel. loolu <laughs> la ko waxee ba pare woon ko ginnaaw dem yoonu waaye boobu boobule vidéo viral loolu. ci leneen rek euh, la nga xam ne moo njëkk a door gis nañu ci ndaje <laughs> waaw maa ngi ci ñëw ci ndaje bi jiitu euh, gis nañu ba muy nuyoo daf ko tëb Ah, mu loolu moo jiitu li ñëpp jàppoon ni nag maire bee tax moo tax mu attaqué ko waaye nag moom président tontu na ko rek tontu ba nga xam ne comme ni ko waxee rek ci meram xam le na ni daal moom euh, mbooleem la nga xam ne ay euh, kàddu la wala sax ay euh, ay détails la du ci du ci dugg mënuñu it mm-hmm. xóot carrément ci la nga xam ne wax na ko ndax moo ko waxal boppam nag teg ko mm-hmm. mooy yoon waaye ah, élément bi <laughs> jotul yemb Aliou Sow waaye nag beneen ci lu ñeel Ahmed xalifa Niass di ab extrême boo xam ne nañu ko teewul rek nuy Cheikh Niass bu benn balaa ngay dugal ka jaaxle ana moome ma jiitu di ma daate ba ma faatoo la xàmmee saa moom ak jaaxle ana moome yaa ma jiitu li ma daaxee ba ma faatu laa la xàmmee moom lay xoolee moom lay déggee sama moom ñi naan est-ce que ñoom <laughs> ñoom problème. yow kay man je te jure man su dee la. Ah. ñi maam la xamal looy wax. mani suñu xarit la suñu xarit la maam la borom ah, <laughs> lu ci munti am daal. non man man man man su dee la bon c'est vrai que il m'aime il m'aime beaucoup. man man dama man moi ah. rend très bien. il a beaucoup d'admiration pour mm. moi mais ce vieux là man dama ko fan xamul na parce que baay bi namul dara. xool te puis faalewul dara. il dit ce qu'il pense xam nga il gère ce qu'il a à gérer. Mm. il avance dans sa vie. il ah organise son entourage et sa famille. et eh, ba pare xam yàlla nag. ba pare fri xam lu ma a gaaw mooy paa bi dafa xam dafa yàlla. fri weesu wala. <laughs> mi na solo macha allah gis ah. la. kii moo baax ci moo na solo. moo a euh, jaay di kii. bi sax mu ne la yow jàngoo. yow euh, jàngoo mi ngi noonu. yow xamuloo. ni mu ni mu ni mu nekkee Macky Sall nag épisode dinaa ko toppaat bu ma fi ñëwaatee yi nam la nag na ko de mm, mi ngi ko sama sama xarit nga te xamante nañu réeroo am na ci ci ci jamono ji mm. lu ci amaat dëgg évolution dina amaat merci beaucoup Awa mi ngi noonu